nga jàpp na moom moo war a nekk taxawaayu président de la république par rapport à la gouvernance politique alors euh, wax naa bor yi mu am bor yi mooy fexe ba bàyyi fi jàmm ci succession jaarale ko ci démocratie hmm. bañ ut koo xam ne kii da koy jéem a jiital di ko jox loo xam ne lii ñeneen ñi amuñu ko loolu mooy borom loolu la war a fay Sénégal. Mm-hmm. ñaareel bi ci wàllu gouvernance dafa war a def ñetti yëf. Mm-hmm. benn bu njëkk bi mooy mu mettre de l'ordre dans ce pays là maanaam dëkk bi pëccëxoo na pëccëxoo boo xam ne li fiy xew sax kenn xamu ci wàllu sécurité. ci wàllu nit ñi léegi lu leen neex la ñuy def lu leen neex la ñuy wax te état moo am doole pour mettre de l'ordre te boo amee pouvoir da ngay mettre de l'ordre pour nit ñi vivre dans la tranquillité loolu manqué na Sénégal ba ñëpp a gis ko léegi ñëpp maa tey la ñuy def te réew boo ko bàyyee ci situation maa tey mën na këppuwaat ci yow. te loolu du responsabilité ku ñu élire. Mhm. ñaareel bi dafa am ay réformes yoo xam ne dañ ko war a def pour dépolitiser xam nga tudd nañu affaire 94 milliards mais ku suivre dossier bi xam ne. politique daf ci bari politique la waay. Mhm. donc dépolitisation bi dañ ko war a def ci administration bi benn ci poste yi xam nga poste administration buñ la koy jox boo defee appel à candidature. nga xam sa compétence moo tax ñu jox la ko dangay jaaral sa liggéey ni ko taxi yi waxee mais bu ci leneen laloo rek leneen mun na ci dugg lu ci bokkul donc administration dañ ko war a dépolitiser dañu war a dépolitiser justice bi fexe ba lépp lu fay dossier bu fa duggee ñu jaarale ko ci yoon ñu dépolitiser économie bi maanaam koom-koom bi ba nga xam ne marché yi ñuy joxe ak yëpp du dépendre ci fi nga far économie yëpp. du ñu ne rek man fii laa bokk damay am marché fii bokk ma fi du ma am marché kii la jox lépp luy koom-koom ci réew dañu war a fexe ba ñëpp ku ku am xarañ rek ak njub ak euh, kattan nga mun ci jot. loolu moom mooy devoiru ah lu ñuy xaar ci wàllu gouvernance ci ressource humaines yi ñu am ci ressource naturel yi ñu am lépp lu fi alal ci réew. Mm-hmm. nga génne ko ne lii lañu am ci alal lii lañ ci joxe lii lañ ci joxeegul. lii lay jar nii lañ ko war a defaree nii lañ ko war a transformer et cetera ba ñépp xam ne lii nga fi bàyyi ci alal loolu boo ko defee dina leer ci bëtu ñépp nga bañ fi bàyyi contrat yoo xam ne yi bu ëllëgee dafay indi coow kii am contrat am ñoo bëgg a def ñu ne ko doo ko fi defee parce que ñi la ko joxoon nii lañ ko amee waruñu ko woon amee nii loolu c'est à éviter donc contrat yooyu da nga koy rectifier ba nga xam ne du am coow parce que boo ko rectifié wul aussi coow lay indi te coow bu amee sa gannaaw dafay gën a tàng parce que doo nekk fii sax pour défendre et mun na am ay dérapage yu bare loolu dafa am solo mooy soo mettre de l'ordre nga dépolitiser ah yëpp y compris ressources yi nga daal nag jublu ci ci ci maintenant nga améliorer situation sénégalais yi. Mm-hmm. nit ñi sonn nañu nit ñi amuñu lu ñu lekk. amuñu lu ñu naan ñu ngi sonn suñu jógee ci ouverture des classes ñu ngi dugg ci ay cérémonie lu nekk ñu am ko emploi amul ci jeunes yi loolu yëpp mooy vrai sujet yi nga xam ne yi képp koo xam ne da nga yore réew war nga ci def ay jéego yoo xam ne yi bu ëllëgee boo fiy jógee ki lay remplacer li nga deful woon te war koo mën a def mu def ko li nga def te lu te mu nekk lu baax mu mun ko continuer li nga def te waroo ko woon def mu jël ko teg ko fële li nga def lu baax te mu defee lu baax loo xam ne da nga ko bëggoon def te defoo ko lu baax mu yeggale ko loolu ñuy yore réew loolu moom mooy assurer continuité état donc ñun loolu la ñuy xaar et ñun conception boobu la ñu am ci politique. Mm-hmm. d'accord am na solo euh, foofu la ñuy tëjee waxtaan wi. Mm-hmm. Euh, ñu jaajëfal la rek ci nangul bi nga ñu nangul euh, entretien bi nii mm-hmm. euh, léegi ñu may la rek looy tëjee ak ban message ngay dénk sénégalais ginnaaw message yi nga yónnee président Macky Sall. waaw message yu sénégalais yi mooy ñu xam ne Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk. Mm-hmm. te Sénégal am na expérience ci lu bare te lépp luñ fi jéemoon ci jël pouvoir di seet ku lay donn wolof dafa ne ku añaane sa ndono. sa ndeyin ñaaw waaye aussi képp ku bëgg a jël ndono jox ko ku ko yelloowul du mujj fen gis nañu ko fii article 35 cinq ñu ko defee jël pouvoir bi euh, koo xam ne élection moo la fa teg nga jël pouvoir bi euh, élection moo la fa war a teg nga jël pouvoir bi jox ko nit dal na fii Abdou Diouf. Mhm. gis nañu aussi relation bi. Euh, président Abdou Diouf amoon ak tanoor ñëpp xalaatoon ne dafa xalaat jox ko ba mu indi li mu indi ci jibokaa génn fa ba lu mu indi li mu indi ba ñas génn fa ñu demati ci Ablaye Wade hmm? kooku dafa perte pouvoir président Ablaye Wade bi mu ñëwee même chose. affaire dévolution ñu naan dafa bëgg dugal dafa bëggal dafa bëgg dugal doomam dafa bëggul dugal doomam gis nga nu mu mujj kon. loolu laay ñaan que d'abord autorité yi ñu xam ne nguur moom yàlla moo koy joxe ku la joxe nga def li nga war a def sa moroom ñëw yeggali ko population yi aussi yeewu nañu fekkee nañu lu bare yàgg nañu tranché dans la sérénité dañuy tranché jarul xuloo jarul xeex ñun daal appel boobu la ñuy lancé ci loolu la ñuy formé suñuy waa parti waa parti la construction de la solidarité PCS Jëngu ci la ñuy former militants yi ñu expliquer nit ñi wax leen wax bu leer ñu comprendre ko waaw loolu moom jarul xuloo jarul xeex